laa taala barakatu maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm euh, wax ji du du gudd ndax dama ko bàyyi sëñ Moustapha mi ak si léegi ndax euh, sunu mag la di sunu mbokk taalibe ñu bokk lépp kon bu ñëwee ak doon lim doon ci président doon ko ci réew mi kon foog naa ne cër bi dama koy delloo euh, kat yu néew rek laa ci sànni bala ma ko ko jox bi ci jiitu mooy dañuy sant yàlla bi nga xamee ne defal nañu li nga xamante ne le président Macky Sall dès le premier tour te loolu ñun amuñ ci loo xam lu ñu bett ndax mi ñaanal ko ne ñi ko doon ñaan seen ñaan de du du nax say beneen bi dañoo daje Makka ci mois de janvier la campagne bëgg man maa fa nekkoon ak ambassadeur Serigne Cheikh si Sy ak Serigne Mansour si di sëtu Baye Niass ma gis ndam doon def ak pas-pas ba mu àndaloon ak yaakaar jam mu àndaloon ma ne ko fii de li nga xamul mooy dajale nga fi waat Sénégal ndax en 1965 suñu wéjër ñoo dajoon fii ba ñu formé Ligue islamique mondiale te suñu ñaan yi biir na ma ne suñu borom dana ko def kon man li amul lenn loo xam ne duma ci bett la kon dañ koy sargal di ko féliciter di féliciter aussi tout le peuple sénégalais ci li nga xamante ne bii moom lañu suñu borom baaxe ba lépp jaar ci aw yoon ba tey ji mboolem àdduna si naw Sénégal ci jëf ji ak jëf yu wi ak rafet wi ak doxalin wi di sargal mbooleem waa ñu ko wateel ak ñu ko wateelu ndax wane nañu ne ci réew mi la ñu bokk ndax ni ñu génne wate ji daanaka lu mat 66 pour cent mu ànd ko dal ànd ko yar ànd ak defe ko ni nga xam ne noonu ko sëñ bi bëggee kon am na yoon woo xam ne aussi waa Touba wane nañ kon ñu ngi félicité ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom wante dem di sargal ñi nga xam ne ne bii feneen la ñuy féete di leen tàllal loxo di leen xamal ne politique bi jeex na. élection yi jeex kon nañu and liggéey sunum réew and liggéey sunum dëkk ñun ci yooyu disposition lañ nek té loolu yi bu ñu sañoon dinañ ñëw ñun ñëpp ñu and nek ben liggéey li nga xamantene bi bii mooy dëkk bi def ci li nga xam ne mooy suñu wàll loolu message bi buy lancé mboolem képp ko xam ne ngi dëkk bi sa dëkk bi ñor la ndax ndax fépp fay féete rek jàpp nañ ne def sa loxo

ba ci toppit waxoon naa ko fii ci kër sëñ toog nañu premier ministre toog Omar yu mu toog mu ne ma sëñ bi loo bëgg mu na ko président man duma laaj dara de ndax kenn yar ñu noonu kon na xam ne kàddu googu ma ko waxante moom laa koy waxat tey jii sama ànd ak moom amul condition tant que mi ngi liggéey réew mi rek di def li war a def na xam ne heure bu gëstu dana ma seet mm-hmm. kon li ki des sama ne bàyyi yow nga àggale ko maa ngi sant jëpp nag auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh uh, sëñ bi ma ngi lay nuyu uh, di am ndëkk lool fekke ndaje nii ajjuma ji bi ñu jubee élection yi ñëw naa Tuubaa sa kër toog am lu ma wax yow tey jii bi ma yëgee ne xew yi am na ak bi ma fi ñëwee soreewul tey laa mas a fekkee ndajem politique gu Touba li ma fi daan ñëw li muy bari bari fekkee mbooloo muy def politique ma fekkee seen ndaje tey la ma sàmm li tax ma def ko nag tey dinaa ko wax euh, sëñ bi Touba ci élection législative yii da am ñeenti ndam ndax bu njëkk ba mooy bu ngeen nattee ngeen newoon 2017 ak fi ngeen ñëw 2010 2019 ngeen xam ne pour ngeen ñaari yoon la ngeen amoon loolu ndam la ndam bi ci tegu mooy président de Macky Sall bi mu mujjee ñëw sëñ Mountakha def ne ko li nga soxla dénk naa ko sëriñ Touba. li fi li Macky Sall soxla ngir duwat seen loxo kon deuxième dam la ndax li mu soxla woon rek mooy faluwaat te duwal ngeen seen loxo ndax li ngeen am ci électorat président gagné na département am fa 70 pour amul lu mm-hmm. muy ndam mm-hmm. ndam bi Serigne Touba def na ñaaw mm-hmm. di def lu baax ba noppi yaakaar ne yàlla lu bon la lay fay président la ville def ci touba lim fi def su ñakoon rew mi mu sañ ñaw ñaaw kon la mu doon def le seigne touba ni ñaw ñaaw moy di def lu baax ba ndëpp yaakaar na yalla lu bon la lay fay président mack Sall lim def ci touba lu baax la yalla lu baax la ko fay moy ndam ni ñettelu ndam ndam ba nak moy lii ngeen def am sentiment ne dañ la gagné ba noppi ngay def rew réunion loolu nit ku for moo koy def loolu nit ku xam fu mu bëgg a dem moo koy def li ma war ci moom lu ma ci man dana ko def man sëñ Cheikh Mbacke moom ma tudde sëñ Modou sa sama bay tudde moo sëñ Modou sa dama juddu mu ne ko sama soxna am na doom bu góor mu ne ko tudde ko sëñ Modou Moussa bi ma fereem soow mu jox ma ko ma dalee fii alxuraan ci béy ji ku dugg ca kër ga boo xoolee sa ndeyjoor da nga ko séenu dimb ba may jàng alxuraan laa ko fa ji. ñu ko am tubaab di wut. dimb ci béy. amoo ko yow. yaa ko jëmbatee yow kenn ko jëmbatee. yaa ko jëmbatee bu leen ko laal. kon eh, eh, sëñ bi ba ba sëriñ Cheikh moom a tuddee sëñ Modou Moustapha. bi ma jàngee alxuraan ba pare 1973. dama leen bëgg expliquer lu ndaw rek bi ma jàngee alxuraan ñu yóbbu ma Taïf may jàngi français dégg ngeen li ma leen important pour ngeen xam lu tax ma ñëw fii tey dama nekk tey di jàng sama ndey fekkuma fa sama baay fekkuma fa ci at yi mur yi laa doon dund man ma jàngi tey ba pare jóge fa dem Gossas ñu yóbbu ma kër Sëñ Moussa Bassirou ndey fekk mo fa bay fekk mo may dundé addiye mur gi maam beefam ñub ma dakar ma nek lycée Blaise Diagne ndey fekk mo bay fekk mo may dundé addiye mur gi bi ma noppee ba yalla jox ma li ma jox nak ma wara fay murid bu ne sa wal ci la ma joxoon sadiya fi ma ko mën a defee mooy tubaab gii ma takk na président ministre chef de cabinet dama ko laaj ne ko lo may doye lan nga may sant ñu dama bëgg nga dox ba digënti sénégalais yi ma taaloo te fekk cheikh Abbas fi ci kërëm mané ko président kat dama sasub liggéey dox digënté nak sénégalais yi mané sama sénégal touba gi la tambalé ya bëgg ñu de da wax toujours man euh, sëñ touba bo am doon duma am sëñ touba la binduma yalla am bind waye bu am doon duma am ndax lam ya, ya dajé ba ma am ci mom la joggé ya dajé ba ma am ci mom la joggé kon fi lu mo man muy guddii parce que keroog ba ngay seex ba dama ne ko ñetti liggéey la bëgg a liggéey benn bi moy yeen ñi mom touba seen digënté président de la république da sax ba ndang ñi dëkk Touba té ay population lu président de la république mën ko def ko ci ñoom ña muy dëkk bi di kër seigne Touba xam état dugg ci ba naat ba mëna mëna madinatul mëna wara mëna a Lo xam état bobu nak ma yéene xam mak Sall bi yor réew gën ci fës kon seigne Abdou yeen ñi da ngeen am ndam ba la de lu aji ci lool nag ki no eh, ndomba tank du yok ci mom dara tous limu do lo gëna gën do ndomba tank dëgg la nag tànn ko ba noppi loolu am moo gën a yomb moo gën li ci def nak moy ñaar yi rek laa bëgg dénk sama dénk ko ñëpp doon benn ba aw ngeewal du dox suñu digënté suñu dew waaw na ngeen dox doon benn ba ngeewal dox suñu digënté ngeen doon benn ak moom ba ngelaw dox seen diggante mhm. ab ànd nag la koy tax dëgëral mooy kenn ku ne li sëriñ doon wax loolu naqar ci ànd ba nañ ko wax ngeen di waxtaan loolu nëbb tey bu suba mu feeñ ba ca def moom nii man de fu ma fanaan fu ma yendu lu ma man danaa ko def ngir mu am lu mu lu mu mën a liggéeyal parce que sëñ bi am na ndam boo bu doon wax muy juróom benn ndam bi fii ci dëkk bi wax dëgg yàlla bu ñu waxante suñu diggante suñu borom ne ndomba tànk yu nit di takk ju moyen yu nit di takk pour man fee def politique bu dëgër bëriwul kon lu ngeen def ci seen jëmmi bopp yi ngeen ko génne ci seen poche yi ngeen ko génne ci seen seen yéene ngeen ko génne kon wax dëgg yàlla guddi yi ñu toll moom ki leen deseel bor président Macky Sall euh, Touba ñun deux mille deux mille douze la ko yóbbu Ablaye Wade ardo hmm. Touba gii la jóge hmm. hmm. ndax am na lu tubaab Ablaye Wade doon am Touba du dem ardo deux mille dix neuf li jox Macky Sall cinquante huit pour cent yu tegal Touba dugal na ci loo xam tam sa sappa soixante-sept millions kon seen ndam li seen ndama yii di ñëw nag lu lu ngeen ca war a taxaw pour moom ñi mu am ndam na ngeen ko ci taxaw parce que nag li ngeen kii ngeen am ñi ko am bëriwul. dëgg la de. li tëddub Sëriñ Tuubaa sëñ Cheikh jur ko jàngal ko ba mu ne ar tey jii fee mag sal toog na faa toog dëgg la de waaw dafa jàng ba ne ar nag man dama ko yàgg xam ñu mu nekk ñu nekk mu nekk gone man mag la waaye yàlla dafa dogal ma yàgg ko bëgg waaw ah, dama ko yàgg bëgg c'est-à-dire am ci moom cofeel bu yàgg yàgg cofeel sax bu yàgg moo tax ma xam ne man de lu ma maanaam bëgg naa ngeen nekk soldaaram moom pour fu ngeen bëgg mu àgg mu àgg fa waaye na ngeen xam ne bu ngeen doon soldaar fu ngeen xool dama seen seen kanam ñu ànd ak moom ngir li mu war a am mu am ko parce que man wóor na moo yàlla ne su ko président Macky yii am ci Touba bi ko am léegi nag li may mujjee sëñ bi foofu lay mujjee ngeen tëye ko bu baax a ba a baax gis na ñi nga xam ne dañoo woteelu président Macky Sall ci Touba bu leen leen mere bu leen leen jéppi delluwaat leen ci ñoom wax ak ñoom parce que Touba ci jamonoy Serigne Touba ba léegi képp ku fi mas a takk ndomba tànk Touba dafa nañ ci xuus tës ci loolu nag daa war di wéy wëttu dellu ginnaaw kon ñooñu dem leen ngeen seetu leen waxtaan ak ñoom ne leen Macky Sall defu leen dara xëy na ñun ñi nga xam ne man Moussa Diakhaté wala ñu mel ni ñun nooy juum waaye njuumte ba ba ba ba def loo xam ne yowewul ci dëkk bi kon loolu yéen jàpp leen am ngeen ndam ba pare parce que li sëriñ Mountakha bëgg def ngeen ko li gën ci dëkk bi def ngeen ko li Sénégal yi def bëgg am ngeen ci ñoom kon li ci des mooy ñi des na ngeen leen dem seeti waxtaan ak ñoom dafa dafa seen xel xamal leen ne yéen a ko bokk seen loxo bu ko defee bu ñu demee la de dëgg la de. waaw man nag boobaa may de campagne am parce que danga xam ne Touba moom ñaari dellu si fi am rek benn bi nga indi say tànk benn wala ñu cornet lay indi. waaw maa ngi dox ba léegi nag dama bëgg a dellu si saa bopp. waaw ah ah, dellu si parce que Ndakaaru laa doon politique waaye nag fii am. waaw kon euh, yéen ñëpp daal daa ngi leen di sant lii ngeen def moom day wane ni yéen am ngeen poids parce que nit ñu gañe la maanaam nga nga ndaje mu toll nii nga woo ko ñu ñëw ak ñu ñëwee sëñ bi na nga xam ne ñii moom am nga nit yow ñii moom ku leen am am nga nit man nag lu ma mën danaa ko def pour loo gën loo mënoon benn nga mën fukk ndax xam naa ne bu sottee rek. waa Touba gi dañ ci jëriñu. li ma la ciy dolli sa waa kër. sëñ bi yabal nañu fa ñun ñu ñoo defoon délégation ko la jaxate. wax na ma ko wax na ma ko kon euh, Ibrahima ana Modou. waaw maa leen di nuyuwaat di leen sant baax euh, di nuyu sëñ Maam Mor Mbacke ñoo ànd ñëw euh, bi ma ñëwee Touba ba léegi ñun ma sànni entraînement am def ñun nag comme ni ma ko waxee woon sànq rek. bi bi élection xaw na te téye naa sama tànk waaye nag sëñ Abdoulaye na nga xam ne nag déparat na nag waaw fi nag damaa déparat na déparat bi nag am na ñaar yu tax benn bi mooy waa Touba beneen déparat bi des moom nii la eh waaw moom nii dinaa la jàppale ba nga xam ne jàppale naa la nag ndax lu ma am sa bàyyi ma ko lu ma am na rek sa bàyyi ma ko kon waaw. ginnaaw prestation de serment bi ndax noppi nañu waxtaan ak waa réew mi waxtaan ak ku gi ñëpp ngir euh, liggéey réew mi. waaw xam nga man xaw ma la ci xelal xaw guma ko dama koy wax rek li li nga xam ne moom ki nu yaakaar noonu moom la ñu gëm muy Serigne Touba Serigne li muy digal ku yor ndomba tànk ku yor kilifteef mooy ngay jéggale ngay jéllale ñi la tooñ nga jéggal leen ñi la xas nga jëllale te la mu waxoon sàmbalaw bi ne ko amal yërëmal nit ñi te bu leen teg benn lor kon ñun li ñuy sant président Macky Sall rek mu jàpp ne 14 millions de sénégalais yëpp ak njabootam lañ ni ko wote ak ñi ko woteelu ñu jéem a xam ñi ko woteelu tax woteeluñ ko ñu nga xam ne ñoo ko woteelu tam ñu jox leen nag la ñu war lañ yeeyoo kon encore une li am mooy li ma koy sant rek mooy li nga xam ne man moom la ma Sëriñ Tuubaa sant mooy que nit ki bu jiwoon nit ñi day jéggale ak jëllale ndax sëñ bu mag bi de li mu moomee Kajoor ak Bawol moom loolu génn ko jéggale ak jëllale di jariñ nit ñi te bàyyi leen lañ yor